kon man bu ma bëggee bon sax sama derete ko du nangu maa ngi jégalu mbokk maa ngi jégalu samay xalifa yëpp maa ngi jégalu tamit samay rakk mm. euh, ak sama xarit tamit ndey Sofi waaw boobu ndey Sofi sama xarit sama xol barke yonent bi maa ngi koy jégalu moom daanaka moom ndeysaan kooku daal dafa sori ci man moom tamit mm-hmm. ndey Sofi ak sama yaay sama pànk pànk pànk day sëfi sama yaay du ma leen mës a def lu leen naqari barke allah ji fàllu nday sëfi nday sëfi sekk sama xarit du ma ko mës a def lu ko naqari ci àddina te bu ma ko defee te daf may jéggal parce que xam na fi ma toll ndax nit ki yaa ngi gis nit ki muy dem rek boo ko dee indil ay wax sax da ko bëgg lekk wala da nga kaa bëgg a indil leneen parce que problème bi daa bëri mm-hmm. tey li ma merloo ak li nekk sama xol ba ma wax sax xamuma ko ba ma indil yëpp. d'accord bëgg nañu xam tey bi nga duggee ci brigade de recherche bi. Mm-hmm. yan kàddu lañ la fa wax. non waxuñu ma dara dañ ne ma toogal nii ci salle xaw ma salle d'attente la tudd xaw ma ah. ma toog xaar toog di xaar man jànguma ma xaar ba sonn saan ñu ma fekk fa nit ñu baax nit ñu baax laa fa fekk dëgg yàlla bi ma fa toogee xaar ba sonn moom ñëwul muy mu ñëwul daal mi ngi dégganteeg ñooñu après tamit waa ji ne ma soxna dama nga leen ñibbi wax ji jeex na ndax lii mbokk la. Mm-hmm. wax dëgg yàlla li mbokk la. alors bi nga duggaatee sa kër euh, ban jàngat nga def tey ci ci kàddu yi nga yëkkati euh, ba tax nga teg sa tànk ci ci ci brigade de recherche bi nga duggaatee sa kër yan kàddu nga nga yëkkati ak lan nga lan nga jàpp que ni moom nga war a. mais loolu dara bi man sama vie li may retiré loolu dara parce que ñu woo nga ne présent jombul kenn ah. ñu nga ne présent kenn ku fa sa aj nekk di nga ko lekki. maa ngi ñaan yàlla képp ku nekk kaso yàlla la fa dugal yàlla bu mu la fa dugalaat ñi feebar yàlla nu wér ñi am problème yàlla na saafaru jàngatuma ci dara loolu dafa ma jomb. leen loo ci jàngat loo xamante parce que xam nga lan laa ci jàngat lépp rek affaire de kii la rek la mhm. maa ngi ñaaraat tamit sama sama euh, papaay xale yi moom tamit nekk si xat-xat yàlla na ko si yàlla génne parce kooku. nee naa mënuma ko fay fenn sama papaay doom yi Aliou sàmm mënuma kaa fay nu mënuma kaa fay ma jégo misaam mari daan dee borom borom jaam yi yow lu metti metti metti da ngay ñëwaat Samb maa ngi koy ñaanal moom tam di ko jégalu bu baax a baax a baax a baax parce que lii tam bu ko gisee même pas bu ko gisul léegi même gis ko ëllëg tax di ko neex Aliou Samb li ma waxoon fii rek Aliou Samb dama ko moom laa xam moom laa miin xawma ku dul Aliou koo xamante ne nii bi ngeen di bëggante gisoo sax mbaax kon kooku mënoo koo fàtte am naa borom kër mu ñëw seet ma ba fa ma doon sëy barki ji fàll mu jógee Espagne ñëw seet si ma ba fa ma doon sëy kon kooku mënuma fàtte mënuma koo fàtte maa ngi koy ñaanal lépp lu nekk rek ci lu ay metti metti yàlla na ko ci yàlla jénne si barke Seexuna Xaddim Cheikh Ahmadou Bamba Uh-huh. Mm-hmm. alors euh, waxoon nga fii euh, ci ki nga xam ne moom moo di Aliou Samb jamono jooju nga xam ne ci nga doon yëkkati ay kàddu euh, wax nga aussi tamit anam bi nga xamante ni peut-être teg nañ ko loxo ci ni mel mais boo ma doon wax tey Aliou Samb lan moo tax ñu teg ko loxo quand même parce que ñu bëri bu ñu déggee sénégalais bu nga xam ne teg nañ ko loxo bitim réew dañuy jàpp affaire de drogue la wala affaire de jaay yàmba ak yi ni mel quand même boo ma doon wax tey soxna si xaw ma lu lu mu def Aliou xaw ma lu mu def déggoo ma ne la kaso ku fa sa añ nekk di nga ko lekk hmm. ku fa sa reer nekk di nga ko lekk di nga ko reer yi. deful dara non non non non non xaw ma lu mu def wax dëgg yàlla xaw ma lu mu def nit ku baax la liggéey rek la xam danaan feebar sax yeewu ne ma ma waar a jugal ta nga ma dox damay sangu hmm. ma ne ko doo fi génn mu ne ma dangaa bëgg ndekki su ma jugul rek doo ndekki suba. xamaluma ko dara de te def fa de gisuma ko lu ñaaw xamuma ko ci lu ñaaw sàmm. d'accord mais xeexal peut-être moo ko yóbbee tey. lan nga xam ne fa la dugg quand même. déedéet xamaluma ko dara loolu de xaw ma ca ndax ndew ma guma Europe maa passeport nag bëgg naa dem waaye yooyu yëpp xaw ma ca dara. dëgg yàlla. alors Mame Wallo sant la gërëm la bu baax a baax lan ngay tàggatoo bi. waa maa ngi tàggatoo Sénégalais rek ndax Mame Wallo Ngom Gaïndé Guédiawaye moom ku ne xam na ko. yaa ngi dégg maa ngi jégalu sénégalais yi dinaan nag ñu teg ma loxo parce que nag dëkk bi daa metti damaa bëgg nag ñu di geesu ma ndax dëkk bi dafa metti yaa ngi dégg man ay ménagères yooyu yëpp bi sax <laughs> man xëyuma dara instant yi nii comme ay wax yu ñaaw bu ñu xoolee yow ñu ne dëng bi caga bi ah. te caga bi sax buy dem di def lu bon sax pour ay njabootam a tax mm. te jigéen a koy wax kon yow mm. kon nag maa ngi ñu teg ma loxo nag barki sëñ Tuubaa Mbàkke dérange wu ma wax boobu parce que lu lay wax lu nekk sax xam nga la tax méttiwu ma sama man xam naa sama bopp te xam naa may kan moo tax wax boobu méttiwu ma dérange wu ma te lu lay wax sax te fajoo ci dara buñ la ko waxee dalay metti waaye ki ko jëkkati wax ko moom solo bu mu am maa koy faj moom faat moom moom ku jigéen ko ku ko wax moo tax méttiwu ma mhm. waaw Mm. waaw maa ngi tàggatoo di gërëb ñëpp nag di gërëm sama yaay si moom laay tàmbalee si moom laay kii maa ngi gërëm sama yaay di gërëb ñëpp bàyyiwuma kenn mm-hmm. di ñaan nag tamit jàmm daal ci réew mi mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. Wally Seck maam Wally Ngom ngay ndéggéejawaay maa ngi lay nuyu di la ziar dina jox sa wàccuwaay mariage bi may sa biige may sa biige marche waaw dama koy nuyu di ko jox wàccuwaayam parce que nit ku baax la barke yonent Pape Diouf tamit maa ngi koy nuyu ndax li tax war naa maam nuyu Pape Diouf bu dee benn jour sax Pape Diouf mën naa lekk quarante mille waaw parce que euh, Ngom ak Diouf ak ba ba ñoo bokk benn géwal ay mbokk lañ ndax Tafa Diouf moom jéem a ma Pape Diouf ay doomu baay lañ ñoo bokk benn baay kon Pape Diouf tam maa ngi koy nuyu naa ko Modou ak sëñ Fallou say doom lañ Waly moo du Ndiaye ak sëñ Fallou say doom lañ ak maman Abi Pouy yaa ngi dégg Thiat Seck Seck Saara Touré ma Demba Yoro sama Youssou Ndour sama sama Waly sekk sama lépp moom yàgg nga maa teg loxo yow Thiat Seck daf maa yàgg a teg loxo te tegwul loxo barki Allah ji Fallou Mbacc Thiat day am di ma jox Thiat Seck day ñëw ñuy toog waxtaan di jooy Thiat Seck day ñëw ñuy toog di waxtaan di ree lu mu am bokk ak man sekk Saara Touré ma Demba Yoro am na solo merci mm. beaucoup. Ah. bu ko alors ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moom moo di Mbaye moom tamit ñu ñëw fekk ko ci kër gi ginnaaw njekk bi nga xamante ni da ko doon